Bougane moo war a remplacer président Macky Sall c'est aussi simple que mais bàyyi leen jàmbur bi ngeen di topp. non non toppuñu ko. parce ah, que si réew mi fi mu toll et je salue quand même euh, ñi nga xam ne moom la le khalife général des mourides di taxawee chaque fois à chaque fois Sénégal nekk ci ay circonstances di nga gis ne ne moom dina am taxawaay bi yeneen khalife général mais particulièrement le khalife des mourides vraiment ñu ngi sant ko ci taxawaay bi. c'est normal que tey ji mu recevoir quand même ñi nga xam ne ñoo nekk ci langue politique bi parce que tey li ñu soxla rek mooy que un élément ou des éléments catalyseurs te tey vu la situation ñi nga xam ne ñoo mën a nekk les éléments catalyseurs mooy les chefs religieux waa crois que tey pour ñu génn ci impasse bi aussi parce que ñooy kilifa diine yi quel que soit alpha am na loo xam ne tey ñooy stabiliser la société surtout suñu société sénégalaise ñooñu tey les protagonistes entre guillemets ñi nga xam ne tey ñooy mbëkkante war nañ leen mën a woo ñoom waxtaan ak ñoom comme ni mu ko waxee ah lu mu métti métti ça va se finir autour d'une table et que tey balaa ñuy àgg ci yenn niveau yi baax na kilifa diine yi quand même woo leen ñu toog te ku nekk aussi nga def. Euh, autour d'une table et vous dites ñett au dialogue. non dialogue. non mais c'est c'est il faut que ñu comprendre dialogue ba am wala dialogue bi nu ko tuddee ça c'est différent. parce que bu fekkoon ne dialogue rek mooy tax réew mi avancé ñaata dialogue lañ fi def et puis format dialogue bi aussi ñun d'accord ñu ci je crois que man lancé bi ma jëm mooy que tey seetaan nañ y des insuffisances y des négligences ba situation dëkk bi nekk ci benn benn niveau bi tey jii ñi nga xam ne parce que euh, scientifiquement parlant quand on une réaction chimique il faut moom yenn saa ay catalyseur pour accompagner cette réaction chimique aujourd'hui bi nga xam ne mooy am y chef que tey man loolu laa gëm. keneen ah li nga gëm parce que euh, xalif yi toll na niveau boo xam ne ku ñu woo ne la kaay toog woo ñeneen ñi kaay leen toog ñuy waxtaan ngir réew mi parce que réew mi moo ñu sut ñun ñëpp dañ ko fi bàyyi waruñu ko yàq ndigax suñu njaboot yi kun ci woo ci loolu di nga ñëw. maintenant nag bokkul ak jaloog boo xam ne euh, euh, motivation yi dialogue yi nañ ko annoncé au départ baaxul parce que dialogue bu fekkee ne da ngay woote dialogue boo xam ne. tout au yaa ngi wax ne les deux cas nga xam ne dafa am lu dal seen cas yoon teggi leen ci pour loo xam ne suñu justice bi ñu wax juge na leen condamné leen su fekkee ne dañ leen di woo pour mën a xool yan voies et moyens la ñuy dem pour ñu bokkaat ça va poser problème su fekkee ne jaloog bi day épée de Damoclès mi nekk ci ñenn lañ ci bëgg a le kooku jëlatul en compte les préoccupations réelles des Sénégalais